la ilaha illa allah la ilaha illa allah fa la ilaha illa allah la ilaha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 fala ilaha illa Allah lanta sama xarit ko ko joxe adé mo tax joxe Dakar mo tax ñu nekk yëpp ci sama da ñu bay yaayam rek da baax yaatu way am succès lool di fekke naa di wala fekke wu ma la la fala ilaha illa Allah fala ilaha illa Allah fa la ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la mu jot mu def ko mbooloo mi ànd ak moom nag dañ koo bëgg soppi ko te mu bëggoon jot ci sëñ bi ba joyal yéenam nam ko daan joyale ndax weer wii sëñ Tuubaa ca la amee may yu rëy nasartani fa innaka ma xawta ay bi innaka al basir sama duqal awsaltali fi ramadan maaram tahu min xabla xablahu bi fayadaan kon ndigal kala waw góor roy na doxinu mag ña roy na maam Cheikh Ibrahima Fall mii maamam roy na suñ Cheikh Fall bay góor mi jur Cheikh Moustapha Fall mi ko jur kon ndigal ñoo ngi koy ñaanal fan nu gudd ñoo ngi koy ñaanal ak wér ba lim bëgg te yaakaar ko ci lu baax sunu borom yi yeggale ko xoolal mbooloo mi ni ñu mel dañ koo bëgg dañ koo sob te bëgg ko rek ak doxinam moo waral ñëpp di ko coow ñëpp di ko joobe ñépp di ko way ndigal kala dafa rafet jikko ndigal kala murit la saadix la baay faal la ku dëggal la ku rafet jikko la xoolal mbooloo mi ñoom ñëpp dañoo bëgg ndigal kala ndigal mi moom sunu doon la duñ ko sant dañ koy ñaanal ndax nit bu fekkente ni bi daa tegu ci yoon wa dañ koy ñaanal rek dara bañ koo pakk seytaane mu say saa borom mosoo ko ci pexam seytaane ak cat ak làmmiñ loolu lañ koy ñaanal moom ay kilifaam yëpp gërëm nañ ko la ko dàmbee ci sëriñ Cheikh ndigal ba ci sëñ Mbàkke mi caatum sëñ Cheikh Fall képp ku mu gis mu sant Fall def na la ni la Cheikh Ibrahima def jox na la sëb cër ba mat sëkk kon moom dañ koy ñaanal rek saa borom musal ko lépp lu ngeen gis ci moom nag da xam ne ab teeñ la waaye yéen bi ñëwagut barki démb Serigne Cheikh Mbacke dafa wax ne Serigne ndigal kale mii day doxe di Cheikh Ibra Fall lay dox ndax koo xamante ne bii day boole di di di di liggéey di tudd yàlla ba boo booyef noonu la Cheikh Ibra Fall doon doxe Serigne Cheikh Mbacke ñu ko net di barki démb rek muy muy muy muy jëw boo xamante ne bii jëw bu am solo la xanaa kay doon koo xamante ne bii li muy doon doon gone day doon royu royuteef ci mag ñi ak ci ndaw ñi ndax yoon yi moom loolu rek la baaxoo muy jëf ku jëf yaa moom sëñ Cheikh Ndigal nag damaa boole woon ak moom ne man nañ ànd ba ci kilifaam gi muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mi fi nekk sëñ Modou Moustapha Fall mu jox ma li nga xam ne un million la ne ma nañ ko jébbal Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ak nay te wax ni moom ñaan gi mu yéene sëñ ndigal kale mii ne sëñ sëñ na ko sëñ Cheikh Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng mi sëñ Moustapha Fall na ko ko ñaanal loolu na xel mu dal la waaw ginnaaw bu ñu seetee yàlla jur ci bi xam naa ne moom bàyyi comme ni ko suñu saa daan waxee rek bàyyam danaa wax naan jëf ak wax mënut a ànd moo tax bi nga joxee kàddu gi mu ni nañ ma jéggal waaye man damay feeñal sama yéene rek waaye yàlla na yàlla musal ko te jàppale leen yéen taalibe yi nga xamante ne bi yéen a ànd ak moom te yéen ngeen doon ay roy ay ci moom ndax nit sooy ànd ak moom da xool na muy doxee ngay doxee noona moom mi ko gis ni muy doxee soo àndee ak moom sa xel war naa dal te kenn du la jëpp ci dara koo xamante ni fu gisee gis kilifaam ci tëli bi sax bu ñu fa dajee woon day sukk maanaam xajala ba nga jàll mu door a mu door a dox yi téyam loolu roy roy téef la boo xamante ni bii moom da leen di wane yoon rek yoon bi muy jaar yàlla na ngeen ko xam te ànd ceeg moom barke Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi sànn kàddu yu xam ne ndax ab taalibe moom muy wax ci kanamu sëriñam yombul waaye ñun ñi xam ne Cheikh Moustapha daan naan ànd ak moom buñ gisee ndigal kala sëñ seex ndigal Moustapha Fati kala bu ñu gisee muy dox nii ñun duñu bett sëñ bi nii rek la mën a mel ndax euh, li sëñ bi wax léegi ne Cheikh Moustapha danaan wax saa su ne loo ko daan laaj danaan la jëf ak wax mënuñoo ànd nan fas yéene jëfal sëñ bi rek waaye ndigal kala bi mu ñëwee loolu moom da koo dëggal loolu la confirmer nag moo tax lii nga xam ne maanaam ci la ne loolu ci la war a ne ñu ngi ñaanal sëñ Cheikh ndigal ndax mooy njaag sëriñ bi mënuñu koo fay ndax du ko yombalal liggéey bi yëpp yombalal na ko téye na Cheikh safaan ni mu ko war a téye loolu lépp leer na ci diggante ndigal kala ñun ñi xam na nag ñun ñoo war a ànd ak ndigal kala ñun nañ góorgóorlu suñ suñ suñ biir ñun ñëpp rek xool fi muy teg tànkam ñu teg fa tànkam ndax bayra bi yëpp ngay gis sëñ Cheikh ndigal keroog bi ñu ko laajee ne ko bayra bi si Baye Fall gi dafa ne bayra Baye Fall mooy liggéey bayre Baye Fall mooy liggéey boo liggéey rek am bayre sëñ bi jëfkat la liggéeykat la bayre bi yëpp muy jekku ndigal ak di defe ndigal rek la ñu ngi koy ñaanal nag sëñ bi yàlla na ko Cheikh Moustapha bañ a sori yàlla na ko mu Moustapha taxaw yàlla na ko ñaan yëpp dal yàlla na ko yàlla musal nag ci pakk yi yàlla musal ko ci seytaan ci barke mu Moustapha mbokki jullit ak mbokki talibe yi bu ngeen gisee jataay bi rek xam ni ki ma tax xewle moo xewle kooku mooy kan ñu ni ndigal Kala Fall doomi sëñ Moussa Fati Kala ja moom sëñ Cheikh Fall Baye Góor moom sëñ Mour Moussa Fall moom maam Cheikh Fall moom maam Ndiaye waaye Fall tey jii bi mu xewlee muy addi joo xamante ni da koo jëloon ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor yóbbul ko bàyyam ba Serigne Cheikh Fall borom ndigal ngir jébbale ab siyaaram ngir bëgg ci moom ndax keroog ba waajuram mu duddoo ba léegi de ndigal Kala Fall mi xam na ne juumul bàyyi ndax Serigne Cheikh Fall borom fi mu ko teg sax tegu fa ay doomam loola moo waral mu dajale ay million mu dajale ay million addiya ju bari ni may Ibrahima ma ko Mbàkke mu ne moo jërul tudd ndax xeeb naa ko lool jërul tudd ndax xeeb naa ko lool ndax jëf bu nungoo borom xeeb ko waaye nag nee na damay sant sama waajur wa bay jooy ma ne ko Serigne Saliou de nee na ak cant bu demul ba dañ koy méngaleeg puukare kon cant ga des na asalaamaaleykum sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulah. nee na sant murid yëpp. di gërëm ñëpp. nee li ñu jëri ci cant gi. muy sant sëriñ Cheikh Fall borom digal. di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. di ñaanal. sëriñ Cheikh ndigal kala Fall moom sëñ Moussa Fati kala mii. di sama doom di xaritam. nee na loolu yàlla suñu boro mi aji jee ko def nee na mi nga ñaan ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na sut bàyyam baaw fan te dese barke bi nee na loolu rek moom lañ koy ñaanal te moom mata ñaan nee na doomi ñaay nag kenn du ko ñaanal rëy gudd fan rek las koy ñaanal nee na mi ngi war Casamance doon dadile addiya yi muy Casamance wili ngara yëpp fu mu nekk rek déggante nag ndigal kala nee na ma koy soñ ci liggéeyu Cheikh Fall bii nee na mu ne ko Fall danaa ci ñëw saa borom def na mu ñëw ci te di ñaan nii ñu ko àndee ren ji ànde woon ko daaw ji gee yàlla nañ ko ànde waat ay ati at ci barke Cheikh ndax nee na gis nañ ci yokkute gis nañ ci tawféex ndax moom mii nag mënut a wax ci ndigal kala nee na koy ñaanal rek ndax li tax. li war diggante moom ak moom nee na matale na lépp nee na jox na ko cër bi jox na ko cërub kilifteef kon yaakaar na ni ku la jox loolu deseelu tu la dara nee na wax dëgg yàlla nee na moom moom moom mel na nu melokaan woo xamante ni ku ko gis dana ko laaj ndigal kala kon nag loolee. sunu borom ay aji bind ji boole leen ay mbir la nee na kon mi ngi ñaanal ndigal kala di ñaanal taalibe yi mu àndal yëpp yi nga xam ne ñoom la àndal yëpp keroog ba sëñ Moussa Fati Kala dëddoo kër gi jaxasoo na lool waaye dañoo ànd ak seen conscience tey seen ngëm sëriñ Cheikh Ndigal teg leen fa mu war a teg ñu toog booba sëriñ Cheikh Ndigal mii Ndigal Kala Fall mii mi ngi ci daara ja nee na boobu jugeegul ca daara ja nee na ñu toog di ko nekk di ko taaxirlu ba suñ borom mi aji bind ji nga xam ni moo nam ci moom def la nga xam ni moom lañ defoon ca baayam bi ak ñu ko jiitu def ko ci ay rakam ñu def ko ci moom mii muy alquranul karim ak ngërëmal yàlla ba mu jugee ca daara ja taalibe ya ku ci nekk ku ci nekk dellu si waat xam ne sëñ Moustapha Fati Kala kat demul toon daa làq woon rek waaye tey jii de mooy sëñ Moustapha Fati Kala ci kaw suuf kenn jooytu sëñ Moustapha Fati Kala ndax moom mii ndax nee na ñoo ngi ñaan mu gudd fan lool te am wér ñun ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk ak moom Cheikh Ibrahima Fall lamp amul kenn koo xamante ne am na ci moom amul kenn koo xamante ne am na ci moom naqar nee na liñ lay ñaanal mooy nga gudd fan lool fal moom rek la la yéene te moom la la ñëpp yéene yàlla nga gudd fan lool te ñëpp nan la ñaanal saa borom guddal saw fan lim naal ci yoonu maam Cheikh Rafal Lamp wi yaatu na lool yàlla na ko jëf te jëf ko ci kattanam ak képp koo xamante ni ànd na ko moom te yéene na ko nee na di ñaanal ñëpp. di ñaan teewaay bii yàlla na ko Serigne Cheikh Fall borom digal nangul yàlla na ko Serigne Cheikh Fall borom digal nangul defal ñu ko joxal ñu ko Serigne Cheikh Fall Baye góor mu joxal ñu ko Cheikh fal Fall mu làqal ñu ko fu yàq yëggul te rafet na ci njort lool fal wasalaamaaleykum wa rahmatullah